Ahmedia TV géewu lislaam ak xam-xam di tagat ci sel ak yaatal deñi billahi minash alshaytan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلين نيو ديلين زيارة ديلين بال حقة ديلين بال لنيان يالا سبحانه وتعالى مبولا نجيجل يدلين دوكل وباخ باخ تي خيو خيو ييغا خامني ген نانتي اك تي ييغا خامني موم لا ني نيك xew-xew yu ñu génn muy fukki fan yi nga xam ni mooy fukki fan yu weeru tabaski nga xam ni moo lamb bisu arafa lamb it bisu iid nga xam ni moom mooy fukki fan yi gën ci at mi ci bëccëg waaye di leen ndokkeel it ci bi ñu toll fi mu ne ni ndax tey moom mooy tolloog yowmul qarri yowmul qarri buñ ko waxee mooy bis bi nga xam ni moo topp ci tabaski lu tax ñu tuddee ko ko mooy ni ñi nga xam ni dañuy aj bis bi dañuy nekk ñoo xam ne dañuy sax ca muna ñoom sax kon démb la doon doon ci ñoom ndax barki démb la ñu tabaski nga xam ni yowmul xarri boobu bisu tabaski nga xam mom moy mooy bis bi gën ca yàlla moom yowmul xarri mi moo ci topp ak it yeneen ñetti fan yi ci topp ñu leen tuddee ayaamu tashriq ayaamu tashriq mooy ñetti fan yi nga xam ne mooy ñëw ci gannaaw tabaski نخام ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ني ايام التشريق ايام اكل وشرب نينا بيستا يو خامني دغانو نيت وورتي بيس لك لا اك نان خامني كون فيت بو داي كونتيني با ليغي وتاخ نيو لان تبسكي نيتي فان لا موي تبسكي بيس بيغا كو ديفه اك يينن نياري فان جي توك ني نيان يالله سبحانه وتعالى لب لو خامني ay yiw la yoo xam ne ñu ngi ko doon taataan ci fukki fan yu ñu génn ak ci bisu arafa ak bisu tabaski ak fan yi nga xam ne ci la ñu nekk yëpp yàlla buñ ci benn umpu yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam yi nga xam ni jéggal la leen seen bakkaar ba mu set keroog ci bisu arafa waaye boole na leen ci jaamam yi nga xam ne goral la leen ci safara ne duñu fa dugg mukk bu defee kon mbokk yi suñu xutba tey dafay dellu ci aw laaj لما بعد عيد الأضحى لن موي خيو جنة وبني تخوال يتبس كي بفاري لن مو وراء أم نخمني دفا بوكو تي مبيري نغا خمني موم لا يالا جانا صبو تي جاما مي جنة وبلن دفالي نيك بفاري ني سانتوكو تي لولو مولن دفال تيالا دفا أم نيك يو باري يو خمني da koy defal jullit bi ci saa ne waaye dafa am ay jamono nag yoo xam ni day gën a kawe day gën a rëy daraja yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon bokk na ci yooyu fukki fan yi nga xam ne ci lañu génn xam ni moom moo làmb bi arafa bisu arafa nga xam ni dañ ni bu fekkee ni woor nga ko yàlla jéggal la at bi nga weesu ak at bi nga xam ni moom nga dëgmal ci say bakkaar وايد ني بس لا بو خامني شيطان تي لي غنا مر ندخ منظر بيغا خاني موم لي غيس سي جوليت ني ني تاخاو تاخوا يا عرفه خامني كين دو سي سول توباي نييب دانك داني ودو مو سين يرام دي تاخاو يالا دي لين جيغال سيني بكار دي لين غوريل سي سفاره ندخ موم لولو دا فاي غالانكور ميسيون ندخ الشيطان لي ميسيون موي fexe ba képp koo xam ne yaa ngi nekk ci yoonu njub boo xam ne day tax nga jubóog sa borom mën laa andil aljanna mu fexe ba dévier la ci yoon boobu te yoonu njub googu wala aljanna jooju dafa am loo xam ni bokk na ci li ci yóbbu jullit mooy yàlla jéggal ko ay bakkaaram golol ko ci safara kon bis boobu bu xoolee yàlla lim li muy jéggal nit ci ay bakkaar ak li muy goreel ci nit ci safara bari waaye na bari boo xam ne loolu daf koy metti ndax dafay gàllankoor li nga xam ne moom mooy mission am boobu mu ci ne ñu dugg ci bisu tabaski nga xam ni mooy bis bi nga xam ni moom mooy bis bi gën a màgg ca yàlla subhaanahu wa taala kon yooyu dafa yeyoo ay sant waaye yàlla dafa laa defal tawfiq ci biir fukki fan yooyu nga bokk ci nga xam ni yaa ngi ko doon taxawal yaa ko doon taxawal ci woor yaa ngi ko doon taxawal ci barit sa dikr say adkaar tudd borom bi subhanahu wa taala li nga def nga yokk ko yaa ko doon taxawal ci alquran gu bari yaa ngi ko doon taxawal ci di saraxe ndax dafa nekk période boo xam ni ibaadaat yi ciy yi ciy daje jamu yàlla yi ciy daje ci moom rek la mën muy woor aji makka ak joxe sarax nga xam dafay taxaw taxawaayu azaka ak ñeenteel bi mooy shahadataan yi da ko mën a saxal waaye julli it da ko ciy def boo xoolee daanaka juróom yëpp dafay daje ci moom ndax nit ki jullit bi saa su ne dafay yeesal ñaari seedeem yooyu muy seedeen yàlla kenn la yonent bi yàlla boo ko yónni moo xam ci nodd la wala ci buy liqaam buy julli la wala ci anam bi nga xam ni moom lay jëfee ci bis bi chaque jour mu def ko yeesal ko tudd ko yëg kon boo xoolee juróom yooyu yëpp daf cee daje kon yàlla moo la defal tawfiq boobu defal la tawfiq wéyit waaye defal la tawfiqu gindi la ci woon la yoon bi ngay jaar yoon bi ngay jaar mooy lan mooy ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko doon defee noonu la ko jàngalee bu mu la defalee loolu ba pare defal la tawfiq defal la wér gi yaram def ko ci sa xel mi nga koy bàyyi xel mu ñëw mu may la kattanu nga mën koo taxawe waaye bu loolu lépp jàllee mu ne la moom moo la ciy yool moo la ciy defal ay tuyaaba li nga def nii moom moo la ciy neexal waaye it mu jëggal la ay gàttañ li nga xam ni amoon na ci am na loo xam ni am na nu ñu ko waroon defee amaana ni nga ko defee yëgul ca dayoo bañ ko bëggee woon yooyu it ay gàkk-gàkk la yoo xam ni mu daal di koy jéggal mu ne yëpp bu fekkee ne dajaloo na jàmm bi nag dafa yell ci moom nag bu paree mu daal di yeesalaat ak santam jëmale ko suñu borom subhanahu wa taala ko jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñooy aj ونذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين لين دي تود سن بروم ديكو فاتليكو تي ديكو سانت سي لي مولن ديفال تا ген فاتليكو باغا خامي ني يين يينغي بوكون سي ييغا خامي سانكو وون ген با تيغي وولين سي يوند ويغا خامي موم موي يوند بوما غيرب واي يت نين كو سانت مو مايلا كاتان وير مايلا علال جو خاني موم غا مانا باسي ديم با مكه ديم وويو جيكو وويو جي فوفو مانا جوخ سي حاج waaye li taxoon nga koy def mu dimbali la ba mu nekk loo xam ni jëmmam ji rek moo tax nga koy def defuloo ko ngir am ci ab tiitatu alaaji wala alxaajatu ñaar yooyu utuloo ko woon ba nga xam ni boo demee ba ñëw sax ku la waxul alaaji wala ko waxul alxaajatu nga bëgg ko coo mere jàpp ni daf ma iñaanee sama demoon màkka gi yow utuloo ci woon loolu da nga ko doon def ngir ni en tant que jullit mu bokk ci juróomi ponk lislaam yi nga xam ni faratale ci yow boo ko mënee nga dem def ko boo defee loolu ba pare dangay sant yàlla ci bi mu la dimbalee ba nga bokk ci jaam yi nga xam ni am nañ moyen yu ñu ko war a defee boo ñëwee nag ku la waxee alaaji ak ku la yoon newu ci ndax li nga def danga ko war a def wutuloo ci woon loolu a xam ni sant googu dafa nekk loo xam ni yàlla ñi nga xam ni ñoom ñooy nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci yonent yi ak nit ñu baax yépp loolu dafa nekkoon ci ñoom aada ginnaaw bu leen yàlla defalee xéewal ba pare saa su ne dañ ko daan sant ngir dabu la mu wax ci alquran wa id taadana rabbukum la in shakartum la azidannakum fàttalikul ba sa boroom joxe ndigal ni fii ak fekkee ni defal naa leen yiw nga xam ni shukru munul am ci lu dul loo xam ni lu neex la maanaam yàlla dalay defal njëkk loo xam ni loo bëgg la nga sant ko amna na ñoo xam ne nag ñoom danañu sant yàlla ci bu neexee ak bu naqaree yëpp wa yàlla bo xolé la in shakartum la wax xamni batu shukru fukara waxé rek xamal ni la ngay sant dafa fekk ni da nga ca bekk wa amna ko xamni mbir bu ñewé mu neex ak mu naqari yëpp da koy dello suñu borom subhanahu wa taala dal di koy sant sant gi nekk lo xam deug la ci mom nak wa yàlla xamna ni dooma adama yi dañuy kawante ay niveau dañuy kawante daraja bokkuñu mu xam ni ñu ëpp ci ñun bu ñuy sant léeg-léeg day fekk ñu am lu ñu bëgg mu jëfandikoo baatu la in shakartum bu ngeen ma santee ci la leen defal la azidannakum dana leen dolli loolu moo waral nga gis ku mel ni sayidna ibrahim ala nabina alayhi salatu wassalam ginnaaw ba nga xamee ni tabax na kaaba gi ba pare mu daal di sant yàlla ne ko rabbana inni askantu min dhurriyati bi waadin gayri di zaran inda baytika almuharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون من كتب خير بفره من يلا من دي ما عندي دك شيء برب بخامن ماك سما إنجبور برب لا بخامن برب بواولا برب بكور لا ناتل كن دفي باي يلا ما عندي نيان غير نيومن دفي تخوال جولي إن خاني مم غسنتاني yàlla nga def ci xolu nit ñi ñu sopp ko bëgg ko nga xam ni sasu ne dañuy mébét ak di ngéeju mën a fay teew waaye nee na yàlla nga leen wërsëgale ñoom bërëb bi nga xam ni fii nga ma wàcce muy màkka nga leen wërsëgale ci mbooleem meetu xeetu meññee amaana loolu boo ko defee ñoom dañ la sant yaakaar naa ni kenn du lam-laamee ne ñaanu yent yàlla ibrahima gi yàlla nangu na ko ku ci nekk ci ñun bokk na ci mébétam bi gën a rëy bu ko defagul wala bu ko defee ba pare mooy dem aj dem aju makka wala mu demee umra kon lim ñaanun yàlla ne yàlla na nga def seen xol yi mu nekk loo xam ne dafa aju ci makka ñu bëgg ko lool kon yàlla nangu na ko waaye nga gis ni it waxoon na ko ne warzuqhum min athamarat yàlla na nga leen xéewal ci meññant yi yu yu yi nga xam ne dañ koy jëriñoo ngir ñu mën la sant loolu it yàlla nangu na ko ndax ñu ne makka amul lenn loo xam ne dañ ko fay bayee waye fruit bu la jaaxal wala meññeef bu la jaaxal boo demee fekk ko fof kon lolu yàlla nangu ko nga gis ni lolu da fay sabab ak genen tiant mu ñëw ci gi nga xamni ñom ñoy ñooy tebaski gi nga xamni demuñu ne wal budna jaalnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha xayr fadkuru sma allahi alayha sawaf fa ida wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imu alqani'a walmu'tar kadhalika saxarnaha lakum la'allakum tashkurun muy wax ak ñi nga xam ñoom ñooy tebaski, ak ñi nga xam ne bu ñu ajee ñoom dañuy rey hadiyu mu ne seen gàtt yooyu nga xam ni moom ngeen rey ci hadiyu ci màkka wala moom ngeen rey ci bisu tabaski ñun ñoo ko jël jagleel leen ko mu nekk ci mandarga yi nga xam ni yàlla moo ko jagleel jullit bi nga xam ne da ciy jaare ngir mën koo tëdd tudd ngir mën a it ndigalam ci ko waaye bu paree ci loolu ngeen tuddu sen borom nga xam ne ñoo ko tàggatal bi ngeen mën koo waaye loolu ñu leen ko defal dañ leen ko defal amaana yéen bu ngeen jugee ci loolu ngeen mën a sant seen borom ci yiw boobu nga xam ni kon sant suñu borom subhanahu wa dafa nekk jaamu yàlla boo xam ne dafay takkoog jaam bi ci jamono ju ne ci saa su ne xam ni danga ko sant ci wér gi yaram gi mu la defal xëy mën a yeewu doxi say soxla ci lu dul benn jafe-jafe balaa nga xam ne loolu xewal la nga dund yàlla may lay at nga dem ba ci kanam nga màgget xëy bëgg a génn sa am jafe-jafe génn naa xam ni ah kon lii ma romb xewal la woon goo xam ni war naa cee sant sama borom xam ni xewal la guy dellu ci sa gi yaram waaye mu xewal la it nga nekk ci environnement ci planète boo xam ni boo xam ne boobu foo mën a dundee la parce yàlla ci xikmaam am na juróom-ñaari planète yoo xam ni borom xam-xam moom la ñuy jàngale ne moo am. waaye doomu aadama fenn rek la mën a dundee muy fii ci muy suuf fii rek la mën a dundee lu koy ne gis nga ñi nga xam ne dañuy dem ci yeneen planet yi mel ni Mars wala yeneen yi dangay gis ne bu ñuy dem dañuy takk oxygène loo xam ne ci la noyyee bu demee foofu loolu li muy tekki mooy ni kon foofu bu fekkee dañ faa nekk te amuñu loolu balaa yàgg dara dañuy dee mandi ñu fii ñu nekk fii waaye mu tàggatal ñu nature bi ñu mën koo jëfandikoo ñun bi ñuy ñëw ci kaw suuf yent yàlla adam bi muy wàcc daanaka ay gàncax rek la fa fekkoon waaye yàlla tàggatal ko xelam tàggatal ko nature bi mu mën koo jëfandikoo ñëw tabax bi ay kër yoo xam ne ca la dëkk jur gi li nga xam ne ñoo fi nekk mu tàggatul ñu ko am loo xam ne ca la jëfandikoo di ko dundee am loo xam ne dañ koy jël di ko di ko def suñu waruwaay yooyu yëpp mu nekk yoo xam ni dañ ko cee war a sant waaye nga dem ba ci biir mu def la ngay jullit jullit boo xam ni sha'air ayyamullah maanaam bés yi nga xam ne yàlla daf koo jagoo bu ñëwee da nga bokk ci jullit yooyu nga xam ne dañ koy taxaw taxawaay ba nga xam ne moo ca yell amaanaa maam ay manque-manque waaye yàlla defal na la tawfiq nga bokk ci ñi nga xam dañ koy taxawee bokk na ci fan yooyu fanu dem bi nga xam ne ci la ñuy génn muy bisu tabaski nga xam ne kon yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa war jullit bi saa su nekk muy sant boroom subhanahu wa ci xewal yi nga xam ni moom lay yëg ak yi nga xam ne yëguñu ko wax yàlla daf ñuy wax ci alquraan ni bu fekkoon ni bëgg ngeen a takk li nga xam ne defal naa leen ko ci xéewal du ngeen ko man man ngeen a compter nag compter gi mooy xëy ne yàlla defal na ma wér yàlla may na ma wërsëg yàlla nangama nangam na di nga compter waaye doo mën a yegg ci njambaxtal la man ngeen a wàññi waaye mënoo leen a takk takk mooy nan la toll waaye nag ma al asaf inna al insana la zalumun kaffaar ànd ak ni xéwal yooyu nga xam ne yàlla mi ngi koy defal jàmm bi ci saa su ne تقلول كينغا خامني موم موكو توپو اك كينغا خامني توپو كو نيوم نيان نيب لا بولي جاغلل نا جانت بوي خي بوي فينك في غا خامني تيانير دا باخ سونو ويرغ يارام نيكول نان داماي فينكال جوليت ني باي نيما فينكال نيغا خام دوج اي جوليت ني نيب نيو تي بوكو يام واي نيغا خامني دانيو گم صاح نيوم خيوال گوغ يالا دلين ديفال كوي ويدي ليك ليك elle da ngay gis ko xamna ah, man de sama borom wax deug yalla dama yakane daf ma fatte wala daf ma jambat léegi doye dik matadik doomu aadama dugg ko ba mu wax loolu amaana lu mel ni tabaski bii dafa ñëw rek mu doon borom kër bëgg na loo xam ni moom la reyee tabaski waaye yàlla amaana ci li gën ci moom wërsëgalu ko mu jënd ko waaye loolu jur ci moom ak caalit kon moom dafa nekk koo xam dafay tooñ boroomam waaye it yemu ci xewal gam ko defal daf koy weddi léegi-léegi weddi gi mën naa am da ko amul wala da am lenn lu mu bëgg ñu xañ ko ko wala sax am na ko mais da koo jël jagleel ko keneen dafa am benn mbokk mu ne dafa am soxna toog ay at mënul am doom nee na daal mu jël dem ci photo sëriñam saay su soxna si tollee diggante rek dafay avorté ñoo dem ci photo sëriñam ne ko diw soxna sii de ay at a ngi nii bëgg naa mu am doom amul doom dëgg yàlla maa ngi lay ñaan fekkee ni may nga ma ci doom bu góor yow laa koy tuddee nee na mu toog lu yàggul soxna si tollu diggante yàlla defal ko mucc ñu ne am na doom bu góor doom bu góor bi mu jël ko tuddee ko sëriñ bi de ndeysaan moom mu koy nettali di am fierte di sant sëriñam di am fierté sëriñam fekk ni yoo xamul mi ngi def bokkaale bu rëy rëy ndax kat yàlla subhana taala moo ko wërsëgal doom jooju sàmm ko ci biiru yaayam garde ko ba nga xam ni dem na ba tolli si war a mucc mu jàppandal ko mu mucc waaye gis nga boo doom ji ñëwee dafa koo jël maanaam ni jàpp ni sëñ bi daal moo ko may doom ji sant ko ci lool di wax def ko kéemtaanu sëñ bi da nga koy wax ni da wax ni sëñ bi de bu fekkoon ni mu ngi dund ba gis sa yow mi dana musu ci yow ndax yaa ngi jël cër boo xam ne yàlla moo ko jagoo nga jagleel ko ko kon innal insana la zalumun kaffar ah, yenent bi sallallahu alayhi wa sant googu lañuy jàngal ba muy wax ak benn saxaaba buñ naan Muaaz ibnu Jabal da ko ni Muaaz yow de ku ma sopp nga sopp naa la lool sopp googu ma la sopp moo tax ma lay jox lii secret bi na nga ko taxoo mu ne ko saay soo jullee ba pare na ngay wax allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik yàlla yàlla ma dimbali ci ma di tudd di tudd mooy di fàttali ko foo mënti nekk sama xel waaye di la tudd ci làmmiñ kon kooku tawfiqul ilahi la nekkul ni nit ku ko def rek sax njàmbaar la da nga góorul daa gaa waaye yàlla moo la defal tawfiq ba nga mën koo def waaye mu ci loolu yàlla nag may dimbali ci ma dele sant mooy boo ma defalee xéwal ba pare yàlla nag ma boole ci jaam yi nga xam ni xéwal gi dañ koy jël jagleel ko keneen wala ñuy weddi ko yàlla nag ma boole ci ñi nga xam ni dañ lay sant waaye it yàlla nag ma boole ci jaam yi nga xam ni danañ la jamu ci anam bo xamni mo gëna rafété ni nga xam non nga ko santané yàlla nga boole ci lool kon loolu yonent sallallahu alayhi wasallam moko jàngal sahaba biñ nan Muaad ibn Jabal kon ñun nit ñu bay ci xel bu baax ndax kat jam bi li nga xamni moko bay ci kaw suuf fi moy wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne dudul ngir ñu wéetal ma ci ak jamu ci mboolem yëngu-yëngu bu jullit bi manti def bu ci sellalee yeneen jullu ci muy ak jaamu rek mu nekk ak jaamu yàlla a xam ni kon loolu yaa ngi koy def bëggu nga ko ñaan nga ko yàlla da nga koy ñaan yàlla subhana wa taala mu jàppandal la ko yombal la ko banga koy def waaye na koy ñaan mu dimbali la ba bu la defalee tawfiq boobu defal la xéwal googu ba nga def ko pare loolu ma def loolu ma la defal nga am ngoru tournewaat ne ko yàlla jërëjëf ci lii nga ma defal ndax kat gis naa ni man duma ci dara du sama njàmbaar du góor góorgóor du sama lenn yàlla sak mbaax yaa ma ko jagleel rek ma def ko yàlla ci mbaaxam moo la dimbali nga def ko waaye dimbali la ci nga sant ko ñaar yooyu yëpp ba amee mu ne la sant gi nga ma sant dinaa la dollil loo tax ba ëllëgee li nga may sante nii lu ëpp loolu li ñu jógee ci ki mu ngi doon ñëw nga jaaxle lool yàlla wërsëgal la loo ko jëndee bi nga ko jëndee ba pare bis ba ñëw mu dimbali la nga bi nga koy rey nga jublu ci ak jaamu yàlla mu nekkaat beneen ndimbal beneen xewal ndax bu fekkee ni jubloo ci ak jaamu yàlla bu ci ak puukare wu duggee wala leneen rek kooku moom daanaka moog zéro ñoo am yàpp rek nga ñoo yem yàpp rek nga ci am waaye ba nga reyee ba pare mu dimbali la defal la tawfiq defal la wér gi yaram ba nga mën cee jëfandikoo jëfandikoo ci jël lenn li nga saraxe ko am lenn li nga denc ko yooyu yëpp ñetti xéewal la yoo xam ni dañ cee war a sant suñu borom subhanahu wa taala sant googu amaana mu nekk sababu ëllëg ak ci biir wala at mii di ñëw boo ko bëggaatee mu yombalal la ko yombalal la ñetti étape yëpp yombalal la nga mun koo jënd yombalal la buus bu war koo tër ren di jotee nga jubli ci muy ak jaamu yàlla gu sell waaye yombalal la ak wér yaram goo xam ne da sa mën a jëfandikoo mu nekk loo xam daf lay jëriñ sa wér yaram kon ñu ngi mbollem jamu yàlla yi nga xamne ñing ko doon def depuis bi wër bi tambalé ba ci fukki fan yi ñetti fan yi nga xam mo ci tegu ci la bokku lépp luñ ci def yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla may ñu ñu fekk koy at yu bare bare bare yàlla bo leen ci jamu yi nga xam jéggal na leen seen bakkar ba ñu set waye bool na leen ci ñi nga xam yit goral na leen ci safara bi jahi rasulih sallallahu alayhi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله